gaawantu njëkkante télé yi tàkk seeni rajo waaye jaru ko dinañu wax sénégalais yi fait chiffre date bu nañ loolu benn temps la am na yeneen ñaari temps yu ci tegu loo xam ne je ne pas vendre la mèche waaye lépp ci semaine yi rek la ci semaine yi rek ma ko waxee nag xam naa xam naa ni am na am na ñu dul nelaw tey ndax xam nga man yàlla may na ma lu tuuti sama diggante gaay duma leen déglu duma leen seetaan toppatoo lu ñuy def waaye defe naa suñu xëyee soo bëggoon jot dégg naa sax samay ñàngal la ñuy wax léegi ma ne ah gars yi kon tiit nañu ñàngal la soo ko ma leen dese <laughs> kon lépp dañ koy teg. ci yoon ak ci temps parce que nag dañu xam suñu responsabilité de dañu xam suñu responsabilité gis nga fii nii waxal ma kii mu ñëw ubbil ma bureau bi bureau bi ci gannaaw gis nga fii li ma bëgg a dalal xelu militant yi mooy kenn gënuñoo xam lan mooy projet bi ndax ñoo ko togg ñoo ko sumb ñoo ko bind kon kenn gënuñu koo xam muy benn ñaareel bi kenn gënuñoo xam le sens de notre engagement kenn lay yàq projet bi mun na jóge ci ñëpp ñëpp ba mu des ñun ma dalal nit ñi ñu ànd ak tey ak dal ndax xam nañ fi njëm leer na nañ te dinañ fa yegg bu soobee yàlla kon responsabilité bi ñu am ñun xam nañ ko te li ci gën a néew waaye moo ci li ci gën a foor en même temps mooy ay ndaw ay ndaw joxe nañ seen bakkan pour que Sénégal change dama xamul ndax nit ñi comprendre nañu sens boobu su ma déggee ñu toog fii di wax ay waxu matériel ay waxu poste ay waxu dama naan nit ñi est-ce que comprendre nañu ils n'ont pas compris man amul jour bu may xëy te sama xel du dem ci boobu amul jour bu ma tëdd guddi te sama xel newul ci loolu amut kon li ñuy def dimension bi mu nekk du dimension bu ñu xam ci politique dimension bi ñu xam ci politique fii Sénégal ñu newuñu ci dimension boobu président Diomaye chaque jour su dara amee walla ñu gis benn affaire fer da koy naqari ci yàq-yàqu yu ñu yàq réew mi da koy naqari et chaque fois la même phrase la may la may wax mu ne ma gis nga lii ñun mënuñu ko fàtte ça ñii ñan ñoo ci am 30 ans amul daanaka lan moo tax ñu dem c'était pour que le Sénégal change président Diomaye loolu la may chaque fois mu ne ma est-ce que xam nga ni ay nit dee nañu nit ñi dañoo fàtte ne ay nit dee nañu pour réew mi changer dañu fàtte loolu moo tax ñun mënuñu nef fii gis nga les avantages yi ànd ak pouvoir yàlla mëtim xam na ni man gisuma ko parce que amul solo bu ñu tomboon ci loolu rek on a trahi ces te bu boobaa nag lañuy ñuy rendre compte suñu borom ma ah. parce que ban hommage ñu mën a rendre xale yi mooy ñu ne ci 5 ans def nañ lii ci Sénégal ci 10 ans def nañ lii ci senegal soppi coppite bi ñu doon wax ci Sénégal def nañ ko ba ñu gis ko c'est ça l'enjeu aujourd'hui te ci loolu la ñu nekk subaak ngoon guddeeg bëccëg moom il siège au gouvernement xam na li ñu wax te duñ ci am lu ñuy lam-laame El Malick Ndiaye bi il ministre dans mon bu ma xëyoon ñu ne ma jox nañ ko deux cent mille francs mu jël jour boobu il sera pas ministre dans le bu ko jëlee midi midi de demi il ne sera plus ministre loolu amuñu ci luñ ciy sédd ak luñ ciy calculer ba tax la ñuy woo ñëpp mooy li ma démarré léegi liggéey baa ngi doog a door challenge bi dëgg mi ngi doog a commencé mu interpeller chacun d'entre nous yéen en tant que qu'artiste ndax seen mission dafa jeex keroog bu ñu neen fal nañu président Bassirou Diomaye Faye ngeen dem aj seeni kooraane ñu xaar prochaine élection wala kenn ku ne ci yéen projet bi mu gëmoon ba tax mu tëju fenk li muy fenk wéy ko day ñëw ànd ak projet boobu accompagner ko kenn ku nekk nag ci domaine ba nga mëne loolu mooy questionnement bi il faut ñun ñëpp ñu nekk ci beneen niveau ci conception suñu relation ak la chose publique mais suñu conception suñu responsabilité ci projet bi kenn ku nekk la taxoon nga dugg ci gëm ko ba am loo ci def tey nga war a gën a takku nag ndax bu doxul suñu échec la ñun ñëpp ah. dinañ ma ci tudd dañ ci tudd président Diomaye waaye dañ ne ah yow de yaa fi wéyoon tàgg gars yi ne suñ leen joxee réew mi gis nga fi mujj kenn ku ne suñu responsabilité la moo tax tey la war a gën a takku ci naka wax naa leen ni ay temps la euh, gars yi dañuy wax état de grace état de grâce c'est pour les faiblards ñun soxlawuñu état de grace état de grace c'est pour les faiblards ñun ba ñuy nekk parti politique opposition amuñu état de grâce dañoo judd rek ñu daal suñu kaw ñun ñooy parti boo xam ne su doon xale la dafa judd rek dox jàngul toog jàngul ràmm parti bu dëgg du 2014 2015 ñu dal sa kaw. 2016 ñu dàq la sa liggéey noonu noonu noonu ba fi mujj ñun soxlawuñu état de grâce ñuy wax ay état de grâce état de grâce genre va bientôt se terminer déedéet na bar kuy opposé wu rek génnal ñun soxlawuñu état de grâce loolu mbirum mbirum tapet la <laughs> ñun xamuñu loolu ñun cooki lañu xam dans le bon sens du terme nag duñu tooñ kenn kenn mësuñoo gis ñu tooñ waaye ku ñu tooñ fekkuñu fi loolu la ñu xam te réew mi noonu lañ koy yore mooy ku bëgg a opposé wu bu mënoon nga commencé sax balaa prestation de serment président Diomaye ndax ñoom seen i yëpp